Aïcha nuyu nañ leen bu baaxa baax yéen suñu ay mbokku téléspectateur Go Dakar TV di amaan mbégte rek di leen euh, fekk si waat tey ci euh, bisu ajuma ji di ci euh, profito di leen ziar bu baaxa baax di leen wax ni juma mubarak di amaan mbégte rek jàkkaarloo waat ak yéen ci li nga xamante ne ni moom mooy seen matinal Go matinal nak ñu nekk ci li nga xamante ni moom mooy dernier numéro de la semaine muy mbégte suñu nak ginnaaw nak bi nga xamante ni démb dañoo jot noppalu rek tey ñu daal di leen di euh, fekk si ngir jeexalee nag euh, tout en beauté mais nag xam ngeen ni euh, plateau bi saa su nekk rek dama ci ànd ak sama ay naataango ñi nga xamante ne ni ñoom laa koy partagel ko ci mel ni doyen Diop ak Abdel Malik ci li nga xamante ne rek tey moom lañ leen di andil jox leen ko nag mu nekk loo xamante ne nii rek dafay am solo lool jëm ci wàllu information mais également ci ay rubrique ba ci li nga xamante ne ni moom mooy météo horoscope ak it éphéméride du jour ba na rek damay ne doyen Diop bonjour. Euh, bonjour Mariama, bonjour à euh, Abdel, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à toutes les téléspectatrices. Je les souhaite Juma Moubarak. Comme Merci beaucoup. D'habitude, day ñaan yalla suñu borom lepp luñ ci jaamu yalla lepp luñ ci ñaan suñu borom nanguko. ko. Mhm. te ñu yag yàgg koo fekkee aussi té mu jik ñu vraiment yalla ubi buntu xam-xam ubi buntu wërsëg ubi buntu lepp lo xamanteni bi rek dafay jëriñ doomu aadama. ay ci am na solo nak ajuma ji tey. waaw ça va. Mhm. alhamdulilah on s'est réveillé on est en vie euh, bon. Euh, am na benn benn benn comme ni ma ko fi waxee woon benn état américain boo xamante ni bii. Mhm. Euh, ñoom seen devise mooy tant que je respire j'espère. Mhm. man boobu lay demee. comme ngay demee voilà fekk yaa ngi noyyi rek daal euh, dara weesoo loolu am na te am na solo bu baax a en tout cas merci beaucoup ci euh, li nga xamante ne ni rek moom mooy retrouvaille bu ñu am ci euh, plateau bi Abdel Malik. Mhm. bonjour du bleu. c'est du bleu. bleu optimiste <laughs> bleu optimiste ah ouais d'accord. sinon ça va bien ça va alhamdulilah. tranquille donc mhm. euh, santé à Allah. Alhamdulillah, rabbil alamin rek euh, comme niñ ko defee euh, saa su defo defoon nañ ko aljuma dal di jël soit rek ci li nga xamné moy bëss bi nga xamné ci lañu nekk allah allah subhanahu wa taala bu baakha euh, di ko ñaan mi ñu doli sa suné siar len leen mariama yow mi siar mhm. également jibril euh mana wa kër gi yëpp wa go média wa kër gi yëpp ngi len di siar di len dokkal ci aljuma ji mais également ñi nga xamné ñoo ñi bayyi xel sa suné muy téléspectateurs yi maa ngi leen di jaajëfal di leen nuyu di leen euh, ndokkeel euh, rek euh, sant yàlla bu baax a baax a baax continuer di wax alhamdulilahi rabbil alamin te di wax tamit juma mubarak merci beaucoup juma mubarak à toi aussi et di leen ko souhaiter yéen également sunu ay téléspectateurs xam ngeen nag Queen Latifah c'est la de la partie ci kanam tuuti lay yëg ci plateau bi ba tax na rek damay ànd ak yéen bu ko defee ñu dem nag jëlee li nga xamante ne ni moom mooy le mot de l'actu te ci moom la ñuy tàmbalee. ay ayca mi ngi noonu le mot de ci nag du leneen lu dul rek daal di xool lu gën a fës ci eh, actualité bi daal di ci def ab taxaw seetlu amal ci ay eh, jàngat eh, ci li nga xamante ni rek moom moo en tout cas soxal li nga xamante ne ni fa mooy askan wi donc mënuñu nag tey waxtaanee leneen li nga xam lu dul li nga xamante ne ni ah, accident yu bëri yi nga xamante ne ni wallaay nag depuis weer yi ñu génn ba léegi ni ñaa ngi koy jooy te it ñu gis nii mu ngi woy di gën a am ampleur mu ngi woy di gën a Ah, di gën a yokk mu nekk loo xamante ne ni dañuy commencé rek di jaal te it di masaw ñi nga xamante ne ni euh, jot nañu euh, en tout cas ñàkk seen bakkan ci euh, bile accident mais également ñi nga xamante ne actuellement ay blessé lañu te ñu nga foofu noonu ca lalu hôpital yi yàlla daal di fëgg seen ay bopp ñu daal di jóg mën a dox ci seen ay yitte alors Diop mu mel ni pas une première wax nañ ko fi jooy nañ ko fi jooyanti ko fi ba sonu jëm ci accident peut-être li may wax rek ana rek lan la état bi di xaar mais bu les responsabilités sont partagées mais quand même moom mooy principal bi nga ni war na taxaw jël ay mesures appliquer avec rigueur jëm ci li nga ni accident yu bëri. waaw jërëjëf euh, Mariama alors euh, xam nga li ñuy njëkk jiital mooy euh, ñi nga xamante ni bii seen bakkan rot na ci yàlla na leen yàlla suñu boroom xare aljana amiin yàlla nañu mm. rëccu sax lu ñu doon lu ñu doon lu ñu doon def fii mm-hmm. yàlla mën na ko yàlla def ñi nga xamante ni aussi euh, dañ ci jële ay gaañu gaañu ci seen i yaram ñoo ngi ñaan yàlla yàlla fëgg seen bopp ci na mu gën a gaawee eh, ñu génn ci l'hôpital yi ñu nekk delluwaat. Eh, ci mhm. seen kër ànd ak seen sago fekk eh, fekk seen njaboot ci jàmm continuer seen seen dund c'est très très durant ah waaw c'est très très dur euh, parce que benn bakkan sax bu rotee rek. Mhm. déjà c'est une catastrophe mhm. waxatuma lak nak euh, juróom ñent xam nga ni lolu metti na mhm. li que yok gëna metti moy ils étaient presque de la même famille euh, mën nañ ko supposer puisque en général dañu démon dëj ñoo bokk dëkk ñoo bokk village bi ñu di lay ñu askanoo ay voisins lañu voilà ay voisins lañu ay hmm. mbokk lañu ndax en général dëj dafa nekk loo xamante ni bii maanaam wolof day faral di wax ni hmm. euh, kenn ñaanul yàlla xëy-xëy say mbokk yëpp daje ci yow ndax en général dëj rek moo koy waral wala jafe-jafe bu rëy waaw dëj hmm. rek moo koy moo koy waral donc euh, daal ah, ñu ngi leen di massaw bu baax a baax te xam ne di leen xamal ni ils ne sont pas seuls vraiment ñu ngi ñu ngi compatir ak ñoom bu baax a baax tout le peuple sénégalais euh, parce que euh, c'est un bilan humainement inacceptable mhm. mais nak y a lu mu dogal rek dañuy japp ni lolu mo gën alors ya ngi wax ci mesure, yi mesures yi nag wax nañ ci waxati mhm. euh, au Sénégal la route fait 700 morts par an lolu dafa ëpp mhm. lolu dafa ëpp yaakaar a amul leneen luy def euh, moor ba pare moom bokkul par bu dee yeneen maladie sax mais moom ni mu koy defee de manière atroce mm-hmm. dafay gën a yokkati joote gi ak tristesse bi parce que ku gis moor par accident mm-hmm. nga xamante ne vraiment yenn yi yenn yi yenn yi da ngay waaru daal donc li ci war a def aussi mooy li wax nga ko sa biir wax les responsabilités sont partagées chauffeurs yi am nañ ci part bu rëy. Mhm. Euh, état bi am na ci part bu rëy même les passagers am nañ ci part bu rëy. Mhm. rawatina nawet waxoon naa ko fii nawet dafa nekk période bu spéciale war nga seet say frein. Mhm. lay dawal noor dawalul nawet war nga seet say frein war nga seet say essuie-glace. war nga seet sa moteur war nga tegg yenn flaque d'eau yu bari yi ndox. parce qu'on ne sait jamais. Mhm. bo ca duggee mën na abîmer moteur bi même si n'est pas si ce n'est pas subitement. mën na la mhm. top. Hmm? et puis voilà nga vérifier yu bare dal c'est c'est important mais surtout la prudence. Hmm. taw ndank nga xamanteni bu yalla dogalé nga dal ci kaw dara sax nga dal ci ndank mhm. dal ndank bobu mën na jur loo xamante peut-être bilan yu melni duñ ko am. Mm-hmm. donc yooyu yëpp nekk na loo xamante ni bii euh, war nañ ci bàyyi xel nawet comme ni ma ko waxee woon mm-hmm. chauffeur bi dafa war a euh, yéege vitre parce que gis nañ ni avant muy taw généralement dafay ngelaw bu ngelawee gis ngeen ni insectes yi dafay bareen lool mm-hmm. euh, nawet des fois nga gis ay insectes yoo xamante ni doo xam sax noo leen di tuddee donc da ñii dañuy naaw et mën na dal ci sa bët fekk nga doon dawal nekk en pleine vitesse donc on recommande aux chauffeurs de ci sen partie ñu yëkkati sen euh, verre disons hmm. euh, ba tamit euh, en général humidité bi day sa visibilité kon nga tal essuie-glace yi ah, bu commencé ngelaw taw di comme niñ mm-hmm. nga ralentir bo ni fort na nga mm-hmm. parce que sous une pluie battante il y a de ces pluies très forte kenn waru cee dawal. Mm-hmm. waaw bu fekkee dafay dafa def lu ñu wolof di wax waame loolu moom il vaut mieux nga gaare. Mm-hmm. xaar ba mu dal nga reprendre. donc yooyu yëpp euh, dafa nekk yoo xamante ni bii bon évidemment dañ ko war a sax intégré ci auto école yi mhm. waaw le conduite euh, boo xamante ni en temps de nawet la xam naa daan ci daan ci gën a ñëw incha allah dina ci gën a ñëw alors euh, dañ ci taxaw ba tey ak Abdel ndax nag gis mhm. nañ ñëw ci peut na conseil interministériel bi ñu doon amal ci fan yi ñu génn moom jital gouvernement bi yëkkati woon na ay kàddu daal di joxooñ en tout cas ku nekk ci si sa boor bi nga féetowee responsabilité bi nga xamante ne war nga ko ci am

Euh, kenn xamul kañ la c'est-à-dire oto yi daw nii rek euh, nga xam ne ñoom ñoo nekk ci circulation bi ay ñab-ñabal la ay euh, kocc-koccal la ba mu mën a taxaw c'est vrai que seen structure dëgër na ndaxte nag boo gisee muy daw ba léegi ça mhm. veut dire que dafa am loo xam ne ci defar bi la de telle sorte que mu mucc ayib mais nag à trop user de li nga xam ne moom mooy seen performance finalement performance yi forcément day mhm. wàññeeku donc loolu moo waral li nga xam ne moom la état état des des des voitures am fu mu nekk nii ndaxte mm. lepp lo gis rek ay oto ci gis rek dañ ko defar defaraat ko defar laal ko laalat ko finalement ça ne ressemble plus Euh, à une voiture normalement mais c'est euh, comme ni ko gars di waxee ay ay ay euh, tombeau euh, ambulant là, malheureusement bon il est vrai également que nag accident de la circulation ce n'est pas l'apanage du Sénégal simplement Nam, euh, na ay mbir comme ni ko Jibril waxee soulevé ko am ay euh, importance pour nous koy ñu xel li nga rek euh, tous les paramètres yi ñu euh, tenir en compte pour que mm-hmm. oto yi mën dans des conditions normales mais du ce n'est pas l'apanage du Sénégal rek ndaxte nag à travers le monde entier maanaam waa OMS dañuy à plus de 1 million de victimes de la circulation chaque année à travers le monde c'est-à-dire chaque 21 une secondes benn personne personne wala deux personnes ñu ngi gaañu ci li nga xam accident de la circulation à travers le monde donc de loo xam Sénégal rek moko mom mm-hmm. c'est vrai que euh, madame indice yi nga xamné mom mom lañu wone moy que né Afrique appelé ëppale ci li muy accidenté euh, ci àdduna bi yëpp ndaxte nag justement mhm. euh, voilà loolu loolu également moom mooy vétusté des routes moom mooy euh, délabrement des des des des moyens de transport yooyu yëpp day nekk yoo xam ne ay mhm. facteurs la en plus de l'indiscipline en plus de beaucoup d'autres choses voilà donc moom mooy moom mooy moom tax en fait Afrique am bi les taux d'accident léegi nag qu'est-ce qu'il faut faire mhm. est-ce qu'il faut s'émouvoir comme chaque fois qu'il y fait gars euh, mesures euh, des mesures euh, contextuelles au lieu que des mesures des mesures pérennes malheureusement chaque fois qu'il y a des accidents on sent l'émotion qui moment prédominée mhm. pré après quelques temps après finalement on retourne à notre travers qu'est-ce qu'il faut faire pour ça mhm. est-ce que euh, il faut euh, que l'État ait jug dëggantaan ci se moomu ouais c'est vrai qu'il faut que l'État ait mais nag euh, état se rek l'État pas pas concerné tout à l'heure Dibul mu évoqué évoquer les responsabilités à tous les niveaux mhm. même si ceux qui utilisent le ñun ñi nga utiliser les moyens de mhm. transport bon c'est vrai que un instant ticket naa pour que comment, en quoi est-ce que nous, les passagers, nous sommes euh, impliqués Mais forcément, il y a une implication des passagers. Mhm. Donc, euh, je te retourne la question d'Ibril. <laughs> le passager, nous, nous, nous, passe, nous passe, en quoi est-ce qu'on est responsable Oui, je sais que si tu es auto, di waxtaan ak chauffeur bi gis nañ ko fi. waaw on ne doit pas parler au chauffeur. chauffeur par mesure de prudence. wala chauffeur. Mhm. waaw xooloo chauffeur. mën déstabiliser. Mhm. ah waxtaan ak chauffeur xuloog chauffeur à fortiori mhm. parce que xuloo ah, moo gën a moo gaawoo a ah, déstabiliser parce que xamuloo nit ki fu mu toll alors surcharge yi sax des fois hmm. euh, oto boo xamante ni bii euh, il te faut user de toutes tes forces pour dugg ci mhm. kenn mënut tëj bunt bi wala tu vois hmm. des fois da ngay gis oto bu fees ba du ñu mën a tëj bunt bi dañ koy bàyyi balan comme ça ça se voit. Ah non, mais toujours. Xam nga ni loolu la responsabilité du passager ne peut pas être. Euh, mhm. mhm. mhm. dégagée. extraite de ça. il y a beaucoup d'autres choses yoo xamante ni bii mais nag la la responsabilité du passager quand même est assez limitée boo ko comparé ak état boo comparé ak chauffeur. ñoom moom bu ñoo jël la part du. Ah, parce que état vétusté des routes feu amul ci yu bari. Mhm. Euh, tout est concentré à Dakar boo duggee ci all bi ah yenn route yi wala ay bitumage lay don wala il y a beaucoup de choses à faire et à refaire. euh, donc loolu nek na il mhm. y' a pas de montage il y' a pas de. voilà mhm. donc yooyu yëpp. bëri na ay manquement dal bëri na ay bëri na ay manquement. donc donc donc donc c'est ça en tout cas dal euh, c'est un signal. muy accident ngàbbu bi c' un signal fort destiné au grand magal de Touba parce qu'on est mhm. à quelques encablures du grand rush mm -hmm. vers Touba mhm. lii nag war na mën a tax kenn ku jëloon ci say matuwaay ben, nga jël ko fukk mhm. parce que les risques en seront augmentés déjà nawet bi day plus dugg déjà embouteillage day am Euh, peut-être un manque de concentration day am parce que yenn chauffeurs yi dañu bëgg dem dellu si waat dem dellu si waat. waaw c'est à hein? il ne faut pas être xam nga tubaab dafa ni en voulant gagner trop. on risque de tout perdre. te muy dëgg waaw léegi da mhm. mënoo benn nit nga dem ñëwaat. Touba Dakar demaat ñëwaat demaat ñëwaat mais te kooku humainement yow boo nee sonaloo aussi da ngay wax la neex rek. Mhm. donc il faut nga am ku la relayer. bu mhm. amul ku la relayer nga jël sa wërsëg te toog. wala nga jëfandikoo a euh, njëriñ loo fekkee. waaw la am na ñoo xam ne dañuy jëfandikoo ay mbir yu pour mën a tenir. li nga mhm. la vigilance. loolu moom c' de l'irresponsabilité totale parce que médicament bo gis rek da lay conditionné. Mhm. waaw te bis bu lay bay da ngay nelaw au volant. Mhm. parce que parce que nelawoon nga mais da nga nekkoon en état de veille grâce à un médicament wala du demee non à plus forte raison alcool wala yoy mom c'est c'est c'est c'est c'est aboli waaw li gëna wër dal bo sonné tu te reposes naturellement. Mm-hmm. bon pareil, tu reprends. tout à fait. am na solo xam naa ne lu ñu ci war a mën a wax bëri na comme ni ñu wax parce que responsabilité yi moom bu ñu ko situé euh, à tous les niveaux ku nekk am nga mm-hmm. ci wàll euh, wax nañu kaar yi wax njaganjaay yi wax euh, li nga xamante ne moom mooy également camion malien yi nga xamante ne ni jooyanti nañ ko lu bëri parce que demoon nañ sax ba di leen bëgg jox ay heure yu ñu dem ak heure yoo xamante ne ni peut-être dinañ bàyyi yeneen auto yu ñu dem donc luñ ci wax bëri na dañ ciy gën rek woy di ñaax ndax nag instant bi nii ku dégg accident accident bi sax ñu bëri buñ ko koy dégg dañu yaakaar ne dañu doon dem peut-être waajal màggal wala yeneen i mbir parce que ak jamono ju ñu toll la. Mm-hmm. Euh, période màggal bu ñu toll la te euh, événement yu mel ak fa mu amee aussi c'est près ak bu mu amee voilà justement. mu nekk période boo xamante ne boo déggee accident da tiit te aussi daf psychologiquement dina jouer benn affaire ci ñi nga xamante ne ñu ngi taxawal yoon di waaj a dem itamit ñi nga xamante ne ni seen i ay njaboot ñu ngi taxawal yoon di waaj a dem donc dañuy sàkkuwaat rek ci li nga xamante ne xëy na moom ki nga xamante ne moom mooy euh, jëwriñ bu ñu dénk wàllu transport euh, jotoon na nag génne ay kàddu ci ay mesures yoo xamante ne ni waxoon na dinañ ko jël xanaa rek mu gën cee gaaw te it mu nekk loo xamante ne ni dafay ànd ak rigueur ak it euh, loo xamante ne ni dinañ ko mën a appliquer que de telle sorte que euh, ñëpp dinañ ci njëriñu ndax nag Sénégal benn la ñun ñëpp euh, ñoo ñàkk muy chauffeur bi muy euh, passager yi ba ci état bi donc ñun ñëpp daal bu ñu mànkoowee daal di ci liggéey taxaw ci ku nekk jël say responsabilité amaana lu mënta ñàkk la waaye bu boobaa it dina mën a wàññeeku doyen Diop ñu remercier la bu baax a baax ci en tout cas analyse yu am solo yu ñu ci amal waaw merci c'est moi qui vous remercie vraiment ci question yu am solo yi ak contribution yu am solo yi et di ñaanal ñep rek vraiment ñu gëna euh, parce que li état war def mënu ko def du tic au tac mhm. euh, route kenn mënu ko défar du tic au tac feu kenn mënu ko samp du tic au tac mhm. li ñu mëna faire def du tic au tac moy wax ak les chauffeurs mhm. ñom mom wax du au mhm, être ils sont responsables. mais mhm. être beaucoup plus responsables. Mhm. hein ba paré la prudence ci pour éviter comme ni que Abdel Wahé on ne peut pas ne pas faire d'accident tant qu'on est sur la route parce que mais euh, parce qu'on n'est pas peut-être les seuls mais quand même meun nañu faire ba mu ko bu baaxa donc c'est ça. Mm-hmm. man daal ci loolu laa leen di ñaax eh, di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ñaanal ñëpp aussi dem ci Touba dem Touba. ak ah, jàmm dellu si ak jàmm kenn bañ a manqué. merci beaucoup. Amin. alors euh, on se donne rendez-vous lundi incha allah. incha allahu rabbi on se donne rendez-vous. lundi fekk mm. gars yi noppaliku tuuti. Mm-hmm. <laughs> incha allah bu fekkee ñëw gën a beesaat. Mm. allez xam naa ne ñun euh, trans ñun dañ la retrouver lundi mais téléspectateurs yi euh, dinañ le retrouver ci temps d'antenne, euh, ci. le dimanche à mm-hmm. partir de 11 heures 11 heures midi. Mm-hmm. bon ñu ngi recevoir le journaliste chroniqueur et analyste politique. monsieur Hassan Samb qui est bien connu dans le milieu incha allah dina def jàngat ci lépp loo xamante bi actualité. politique la Mhm. ak euh, sax au-delà. merci beaucoup et euh, bonne journée à Diop doyen xam naa bu wàccee rek day dem uti kafe ak beignet bu ko defee nag ma daal di continuer. saxal la cee <laughs> la ki nga xamante ne Abdel mooy mooy wuti maafe moom bu wàccee. yii bu sonn non. bi ngay bi ngay bi ngay mais bon soosu maafe mburoog soosu maafe laay wut. mburoog soosu maafe. Mhm. mais nag am na ku bëgg ceebu keccax loola ah, ci biir kër gi. déedéet kay xanaa. Mhm. ceebu ñebe sax. Mm-hmm. am na tamit ku bëgg mbaxalu Saloum. kon boo euh, kër gi seen ay faral di wutu fii ah da fii de. Mhm. du ma tudd day faral day faral. bu ñëwee ma woo ko à la mu mu kii nii mu mu défendre boppam. dinaa ko à la barre. merci allez merci beaucoup à vous alors dañuy continuer ak yéen suñu ay mbokk téléspectateur ci seen matinal go matinal li nga xamante ne nag moom mooy en tout cas seen télé digital bi ngeen di topp rek mooy euh, Go Dakar TV di leen accompagner ci semaine bi yëpp. Latifa ce sera de retour. La queen c'est nous, queen une queen téléspectateurs nous nous suivre hein la queen de Go TV donc nous, nañ nous, bu nous, baax. c'est vous <laughs> rubrique. nous, hein? xam nga euh, euh, dans un instant la queen. Mm-hmm. comme si rubrique vous présentez mais mais effectivement rubrique rubrique la man dama koy nous, ni nous, merci nous, c'est nous, comment vas-tu? Je vais très bien, alhamdulillah. La pêche ça colle. Ça se voit, non <laughs> Alhamdulillah. <laughs> bah ça, se voit. Je me complète. Ça se marie. Mm-hmm. Rose bleue. c'est trop joli. Mm. Comme notre hein? téléspectateur est hein. content. Vous êtes content de ça, de la couleur. Ouais. Non, ça se voit. Kawe na bache kawa kawa. Bache kawa kawa kawa. Yassine, Yassine, comme toujours. Ouais, ouais voilà comme nous l'avons fait, defee téléspectateurs yi ngi leen di nuyu di am mbégte di leen wax euh, juma mubarak j'espère que yéen a ngi si jàmm di ñaan jamm yalla na leen yàlla defal jamm defal ñuko defal ko mbolum jullit euh, Mariam. amin merci beaucoup Queen alors tu t'es bien reposée. alhamdulilah. Mhm. Mhm. alors loolu neex dégg merci beaucoup en tout cas de nous rejoindre sur le plateau euh, ñu allons poursuivre avec yéen la ba tey Go Matinal heure bi pour ñu jox li nga ne la page météo. alors ba tey rek euh, ci li nga xamante ni moom mooy go matinal ndax nag dafay am solo bu ngeen xëyee yi tamit ngeen daal di xool rek fi nga ni foofu la temps bi toll ngir nag mën a waajal seen bopp ci bu ngeen di génn wala bu ngeen génnee ba noppi rek nan ngeen di euh, organiser seen journée en fonction du temps parce que nag dafay am solo bu baax a baax euh, ngeen xam ndax tàngaay bi fu muy toll à quelle heure lay sedd ndax yaa dee en tout cas prévision jëm ci wàllu taw bi ba tax na dañu commencé avec la région de Dakar. Dakar ñu am li nga xamante ne ni mais mooy benn temps chaud entre vingt sept à trente deux degré euh, waaw tàng na nag xam naa Abdel moom fu mu toll nii. Mhm. découragé na te dara xewagul. mais yàlla baax na ayca j'adore ça voilà bu ñu jógee nag euh, Dakar dañuy dem ba Saint-Louis foofu tamit Saint-Louis jàpp Dagana euh, dañu ngi am vingt sept jàpp trente deux degré bu ñu fa jógee dem ba Podor ñoom tamit ñu ngi entre vingt six et trente neuf degré waaw mu nekk loo xamante ne nii en tout cas tàngaay la bu ñu nemmeeku lool. lool tey ci euh, bi euh, bu ko defee Thiès nag euh, Thiès ñu ngi entre 27 et 33 degrés, ñoom itamit boo demee ba ñu ngi entre 27 et 33 degrés, Louga Louga nag Louga jàpp lingère ñoom ñu ngi entre 25 et 37 degrés, bu mu fa jógee nag dem rek ba ñu ngi entre 26 et 35 degrés, Kaolack 26 et 34 degrés également Matam 28 et 36 degrés. Nous de fait ñu daal nous dem entre 26 et 35 degrés. Fatigue, 24 et 34 degrés. Tambacounda tambaconda euh, Goudiri Bakel nous entre 26 et 36 degrés. Nous sommes que nag Tangabi, euh, c'est un peu partout au Sénégal avec pratiquement les mêmes variations Nous de fait ñu continuer avec Kédougou nous entre 26 euh, et 32 degrés. Jigenshor, jàpp Cap Bignona nous nous avons un temps chaud de 27 à 32 degrés. Euh, voilà beaucoup de defee ces euh, jours, bi nga nous entre 25 et 34 degrés. Nous avons un temps entre 25 et 34 degrés. alors li nga xamante ne ni euh, moom mooy nag jëm ci wàllu taw yi donc région yi nga xamante ne nii rek dina am taw mooy euh, euh, ay taw yu ànd ak ay dënnu nag muy région de Kolda région de Sédhiou région également de Kédougou chor xamee nag côté yooyu noonu jamono ji moom moo ëpp lu muy taw rawat boo koy comparé ak Ndakaaru Thiès ak yeneen région yi ba tax na rek li nga xamante ne ni moom la ñuy retenir tey ci région bi gën a tàng Eh, ci eh, Sénégal foofee noonu ca ndax lay nekk rawatina diwaan bu Podor ñoom ñi nga xamante ne ñu ngi entre vingt six et trente neuf degré mu nekk loo xamante ne ni eh, tàngaay bi gën a rëy bu ñu en tout cas nemmeeku ci biir ci biir réew mii lay nekk ba tax na nag bu ko defee ma daal di jeexalee ci parti préféré de Abdel Malick tey ci bésu ajuma ji <laughs> sa préférence la tey ci bésu ajuma ji donc on va dire que le soleil se lève à six heures 56 minutes. Ensuite, li nga ni moom coucher du soleil ce sera à 19h32 minutes heure bi baax bi nag lay nekk pour ñenn mais également heure bi nga xamante ñu bëri ñu ci yoon bi di donc dinañ a am chance daal di koy en tout cas hall dem nak hall euh, rek nu mu gëna rafété comme ni ko Abdel di défé yéni itamit mhm. défé len ko noonu moy li nga xamanteni ni mom moy sen page météo du jour conseil bi nak du len lu dul ngeen ko di exposer wu ci naaj bi raw na xale yi ci période vacance la ñu nekk di leen surveiller bu baax a baax éviter di exposé exposer itamit ngeen di ndox bu bëri ci période tàngaay bi ñu nekk euh, ñi nga xamante ne nag taw yi seen ay zone ñu ngi ko fay xaarandi bu ko defee rek ñu mën a euh, ngànnaayoo li nga xamante ne niche moom mooy parapluie ci ay bu ñu ay génn si seen ay génn plutôt voilà Abdel Malick en tout la gën a fës ci li nga xamante ne niche moom mooy météo du jour très bien kon nag euh, mu ngi noonu information yi defe naa ne euh, gars yëpp nañ ci xel bu baax a baax. Mhm. Euh, bon alors peut-être rek. hein mhm.

3% avec euh, bien sûr li nga xam ne le temps qu'il va faire aujourd'hui Mariama alors Queen yow moom xam naa ne fu mu toll ci temps bi ndax nag def nga sa lu oyof loo xamante ne nii ah ngelaw bi dalay jaar fu nekk. yow def lu diisam. Ah. yow yow. <laughs> ah vraiment lii lii di suuf la oui. ah doy na waay doy na waay en tout cas daal wax ay def na oyof na def na oyof loo xam ne nii macha allah ngelaw bi da lay jaar fu nekk. voilà ah. couleur couleur été la. daa été daa été daa été daa été voilà <laughs> moom laa jaar tey tey su ma wàccee couche du mm. soleil moom rose bi fa laay dem moom ngay dem. da yeggali météo sa météo dafa neex sa météo moo dàq météo yëpp. <laughs> jàpp jërë jàpp <laughs> du ma ko yeggali ndax fu nekk nii xam nga yow dañuy naan coucher du soleil. mais yow mm-hmm. lever lañ lay bàyyi. <laughs> parce que nangu mm-hmm. na ko mbaa du dama naa ko deux fois. waaw bëri na de. bëri na trop. bëri na kay. Mm-hmm. te est-ce ko dollante. mën naa nekk. Ah, dañu envoyé benn selfie rek boo demee. après ñu tam xam ne tu étais sur les lieux. merci beaucoup en euh, lii moo nekkoon nag seen page météo bu ko defee mm-hmm. nag damay daal di continuer ak yéen ndax nag tey la vendredi te dama bëgg euh, li nga xamante ni ñoom ñooy astre yi ñu jox leen ay nouvelles yu neex ngeen demee ko week-end euh, rawatina nag li nga xamante ne rek moom moo jëm ci wàllu koppar jëm ci wàllu santé jëm ci wàllu mbëggeel sentiment nag Queen dina ci sawar lool ba tax na rek dañuy dem jëli li nga xamante ne ni moom mooy seen ay horoscope du jour. voilà horoscope bi nag du leneen lu dul benn pello benn duo de choc ndax nag ñoom ñaar ni ngeen gisee ñu jàkkaarloowee ni euh, noonu la ñu rek euh, bëggante <laughs> noonu la ñu mënee duo bu am solo solo ndax nag kii bu waxee rek keneen ki da koy euh, feelu ca wet ga daal di faram-fàccee li nga xamante ne ni moom mooy horoscope bi en wolof ba tax na damay bàyyi kiwin rek mu daal di tàmbali avec les béliers wax ñu tey béliers lan la ñu andil. maa yow tey tey moom Astrid barki dem bi xam kay. démb. Uh-huh. démb. Uh-huh. non démb dama dama doon xulóog ñoom. déedéet kay non loo jotee astari yow. non keroog li ma def dafa grave. waaw coup d'état ok non keroog coup d'état bu uh-huh. grave grave lañ ma te loolu du yoon. Mm-hmm. xam nga ni ñu toog di xaar par di leen indi loo xam ne. wax nañ la lan moo tax ñu def loolu. <laughs> nee nañ Abdel la ñu mere. <laughs> waxuñu la loolu de. nee nañ waxal wax ji sàcc nga film bi. parce que Abdel ba tey li mu waroon versé. Hmm. versé wu ko xam ñoom dañ ci am part de responsabilité. Ah. Ah, ok ah, dañ ci am wàll. dañ ci am wàll fournir en fait. voilà léegi hmm. yàlla kii rek. Hmm. am na du noonu. yaa ngi leen tegaw loxo kon di de mooy mooy am am. <laughs> voilà Abdel aca ñu commencé pello bi. <laughs> mbaa mbaa mbaa dañ dem ba ci ba ci digg bi rek. non non nañ ko de. asta nii asta nañ de. Mm. def dama ci yàgg rek arrêté ki bi affaire bi vision bi. arrêté vision bi dootoo gisati. ndax si ndax si ah nga yëg jeli ko de. Mm. Mm. dama koy jëli bu baax a baax. Ah, alors aujourd'hui 16 euh, mm-hmm. août. 2024 cest du ma 2014. Bah pare boole ci ut bi gaaw na gaaw boo xam ne macha allah. uteeg euh, <laughs> <laughs> ki nga xam nag kam ji fi <laughs> de les xam non non mais gaaw non non C'est yéex gaaw non non. voilà. voilà 23 di ñëw ak yag wa baax Abdel. bismillah on commence par les béliers. bélier vous devez vous monter à la hauteur d'une situation.

à un amour heureux. ça y est koy nu koy defee ça y est. ça y est <laughs> c'est fini na julli tubaab. voilà ça ah, kay ah, kon nag mu ngi noonu ah, di nga am li nga xam ne rek moom mooy euh, possibilité ngir mën a daal di weccoo xalaat ak ki nga xam ne moo lay lif ci bërëbu liggéeyukaay bi wala boog bu nekkul kooku mu nekk ki nga xam ne moom ngay bëgganteel ci jamono ji. Hmm. kon bëggante. dafa xew. <laughs> Lion dafa xew. Hmm. <laughs> ñu Lyon. Mhm. aurez-vous beaucoup de travail. Mhm. Où vous où vous faudra-t-il vous reposer. les mhm. deux sont possibles. waaw laaj la de bu samp ndax liggéey bi bëri na wala boog da ngaa xalaat ne da ngaa war a dallu ci jamono ji boo ci def rek euh, maanaam mën na nekk te boo ci def rek tamit du yàq ne du tax euh, maanaam du tere que ne beneen baa ngi lay xaar waaye nag euh, boo ci def rek baax na. Vierge. Belle journée hyper rassurante pour votre jolie personne vous serez très apprécié. Wa bés bu neex bés bu dal bés bu tey ngir li nga xamné rek moy yow ci sa jëm bop ak li nga xamné ne loolu ngay wane ci nit ñi euh, té loolu la dina neex bu baax ñi nga xamné ñom nga ko séexal. balance balance. balance balance. Yeah. En, <laughs> en mm -hmm. votre fort intérieur vous n'êtes pas toujours satisfait de vous votre entourage lui le sera.

signe élu de ce jour c'est parfait vous aspirez à avancer et vous avancerez. waaw euh, madame, lépp rek neen neen la signe da ngaa da ngaa carrément Sagittaire da ngaa fës bu baax a baax a baax te euh, li nga ça, ne euh, moom mooy li sax moom mooy loolu que nga fës boobu la fës boobu day baax ci yow ndaxte dina la tax jëm ca kanam ci wàll wu Verseau prenez soin de vous et de ceux qui vous chérissez mhm. avec euh, pour bonus une note joyeuse de méditation. toppatoo sa bopp bu baax ci wàll wu nekk euh, ci euh, wér-gu-yaram ci li ngay lekk ci fa ngay tëdd toppatool daal sa bopp bu baax a baax ak ñi nga xam nga bëgg également toppatoo leen bu baax bàyyi leen xel bu baax a baax lii ci gën neex nag mooy que ni di nga mm, am xel mu dal daal di mën gis loo xam lu leer la ci sa kanam. poisson merci. <laughs> c'est ce que j'attendais. <laughs> voilà. ba léegi un jingle bi de ah? poisson. maa ngi tudd jingle maa ngi tudd jingle poisson poisson boo xam ne poisson ay d'artifice. <laughs> l'embellie se fera avec vous en famille comme ailleurs restez confiant waaw lépp euh, mu jeex ah lépp neex. l'embellie moom ma wax dëgg fa yàlla moom mooy mm-hmm. rek lépp loo làmb rek mu daal di euh, euh, voilà day noy day des te day or après. Hmm. tout ce que vous touchez sera l'or voilà donc euh, euh, que mu nek ci sa bir kër que mu nga fay fa ngay ngay fa ngay dem rek or est-ce que. laal naa lépp ah. <laughs> ani or bi. <laughs> yow nag. <laughs> ah en tout cas loolu nga wax ne lépp loo laal. Mhm. voilà ah, bu ñu comme actuellement maa ngi fi kañ. du ma ah, laal table bi xool ba xam. waaw bu dina nekk bu yàkkamti dina ñëw. ah waaw kon baax na kon j' espère que mbokk téléspectateurs dinañ ma jéggal mercredi lu asri def donc di leen leen lool. j' espère que ku nekk aussi di nga ci gis sa bopp bu baax a baax en tout cas man gis naa ci sama bopp. ouais ouais ouais waaw merci beaucoup en tout cas Queen pour li nga xamante ne ni euh, cette belle présentation mais également mm-hmm. Abdel pour li nga xamante ne ni moom mooy faram-fàccee ndax day am solo euh, jëm ci wàllu leeral yi mu mel ni nag souhaite tey les nañu li nga xamante bon week-end ndax nak, euh, macha hein, nouvelle année, na mm-hmm. donc bah leen ci xel bu baax baax dal ndànk hein, i tamit beaucoup de de joie de vivre am na ci solo ça vous permettra d'entamer li nga xamante ne moom c'est seen week-end en bonne mm-hmm. humeur également euh, vous reposer pour que euh, semaine euh, prochaine hein, lundi bi ngeen mën am départ bu baax a baax a baax dalal esprit bi mais également dalal leen li nga xamante mom moy yaram bi da ci am solo bu baax baax merci beaucoup nous vous rappelons que yéen a ñu suivre à travers Go Dakar TV ci li nga xamante ne rek moom mooy matinal Go matinal ñu koy défé saa su nek c'est du lundi au vendredi ci li nga xamante ni mom moy suñu ay plateforme daal leen di proposer lu gëna a jëm ci walu information li nga xamante ni moom lañ leen di andil di le mot de l'actu bi ñuy tàmbale saa su nekk ak Diop mais itamit buñ ci noppee rek comme ñu ko defee nii noonu lañ koy defee ak yéen daal leen di jox li nga xamante ni moom mooy la noppee jox leen horoscope bi nga ne nii euh, duo bi ngeen gis léegi léegi moom la ñu daaneel euh, bu ko defee nag dañuy dem ànd ak Abdel Malik euh, cette fois ci nag éphéméride lay doon ndax nag xam ngeen ni bis bu nekk rek am na lu si jot a xew ci jëm ci wàllu histoire moom nag da ci dellu si waat ci yi nga xamante ne ni moom mooy date ci gën les éphémérides, c'est tout de suite. Abdel Malick. Euh, oui 16 août lan lañ ci mën a jàpp ci li nga xamante ne ni euh, moom moo gën a fës jëm ci ay événement bien atia ñu daal di rek ñëw ci bi nga xam ne moom la ñuy tàmbalee ah ca euh, jamono yooyu xew naa yàgg lool waaye nag dafa jar ñu bàyyi ci xel. Mhm. daal di taxaw seetlu bu baax a baax ndaxte nag c'était en 1861 du Sénégal. Mhm. waaye nag lii nga xam ne maanaam xew-xew bi. mujj naa laal Sénégal ndaxte nag euh, nee euh, maanaam bu fekkee ne da nga ànd ak euh, nit. Mhm. mu nekk nit koo xam ne dafay jëm ca karam ah donc bu yàggee yow tamit da ngay jëm ca karam ànd ak moom ndaxte nag bu la wàllee ci li nga xam ne rek moom mooy xalaat yooyu ne dafay nekk loo xam ne peut-être que dina lay jëmee kanam yow yi tamit donc je reviens à cette date du 16 août 1861 bés boobule la ab soxna pour la première fois ci a bi daal am réussir au baccalauréat c'est-à-dire euh, la première femme qui a réussi au baccalauréat mhm. qui s'appelle Victoire Dobier, donc euh, ab française donc euh, examen au bac xam nga que, waaw ci ci jamono yoyu amona ci mhm. ci ca dëkk donc mom mi nga xamné rek may Victoire momo moo li nga xam mom moy ont euh, bi pour ñeneen soxna yi yi mhm. euh, donc rafetlu lu tax parce que avant mhm. soxna yi ñu leen lool ci ab dañ mhm. euh, c'est des êtres inférieurs depuis des siècles et des siècles hein, depuis temps ba nga la un euh, un tout petit peu rectifier le tir. Mhm. mais ci xelu ñu peut-être l'islam ci comme 1800 euh, donc euh, permettre pour la première fois à des femmes de faire le bac qui moo ci njëkk am bac Victoire d'obier mi nga xamné rek. Mhm. Euh, war nañ ko daal di euh, sargal bu baax a baax. Mhm. Euh, boobu légui nak baccalauréat finalement nek diplôme bo xamné légui dañ koy soofantal ndaxte mhm. voilà qualité bi ah di nga xamné ne moy système d'enseignement bi ñi wax au Sénégal dafa wacc bu baax baax ba ku am bac. Euh, day mel ni amoo benn diplôme sax ndaxte mhm. nag yow qualité euh, bi mhm. nga amone avant li nga xamné mom moy euh, xam-xam bi do nekkoon ci yow ñi amone bac ci ane yoyu ak mhm. ñi nga xamné ne ren ji ño am bac xam nga né boo comparer ça veut dire qu'il y a une fossé y a un fossé bo xamné dafa ngandé ça veut dire que donc c'est un tout petit peu dévalorisé malheureusement mais bon toujours est-il que c'est important ah ndaxte nag bo nekkee ab goné tout temps dugg maternelle dugg primaire secondaire xam nga tu tends vers ça te day fierté donc même fait fekkee ne amul valeur sax mais ba légui fierté jàppale pour les pour les jeunes apprenants kon nag euh, encore une fois dañuy rek féliciter ñi nga xamné ne am nañu bac ah ci te soxna yi wax dëgg fa yàlla wane ci seen bop bu baax a baax kon nak jàpp leen ne euh, bac boobule ci soxna si la tambalé hmm, hmm. yéen ñi boo amé amee di contane bay bëgg a di espérer dem Cheikh Anta Diop wala feneen jàpp leen ci soxna si hmm. la daal di tambalé en 1861 ñu ñëw ci benen date 16 août 1984 euh, boobule Sénégal Sénégal état au Sénégal faut ratifier la convention euh, sur le droit de la mer étant sa zone économique exclusive mhm. à 200 à 200 miles de ses côtes le Sénégal donc à 718 km de côte 700 km de plage yi mhm. defe de wax nañ ko fu 1984 que euh, non seulement côte bi Madame euh, li Sénégal de Cap à le delta du fleuve Sénégal. ñun ñoo mhm. également il fu sori bu 200 kilomètres ci ñu Sénégal bokk donc mm. domaine maritime la ñun ñoo ko suñu bopp te ñoo koy sàmm lépp loo rek euh, am du ci mm-hmm. am mm-hmm. kon mu justement pétrole bi nga euh, mm-hmm. Sénégal ko pétrole la comme domaine la tamit également une façon euh, de d'alerter encore une fois les autorités par rapport au pêche bi nga xam ne mooy pêche pêche kii bi nga xam ne illégal gros bateau yi ko def c'est vrai que zone bi yaatu na lool parce que boo xoolee ci li nga xam ne moom mooy croquis yeeg image yi yaatu na lool sax waaye nag il faut ñu def ay effort ndaxte nag lii nii alal kese la te koom-koom boo xam ne mën na jëmee Sénégal ca kanam ndaxte nag wax dëgg fa yàlla buñ ko gérer ni ñu ko war a gérer dinañ am lu bare bare bare bare kon jot sàggane te xam naa ne sax autorités yi sàggane wuñ ko ci mhm. ok alors troisième date nga xam ne moom laa bëgg indi en fait euh, euh, mënoon na mënoon naa ñàkk sax ndaxte nag <laughs> dama su ma suma ma su ma nee journée mondiale du cerf suma su ma nee mhm. xëy na lu ci samay ngañ sama ngañ nekku ci waaye nag <laughs> nag faaw faaw ñu ci nga bokk nag faaw faaw ñu faaw ñu fësal ko mhm. ah, parce que am na lu tax mhm. en fait euh, li tax mooy en général dama leen tàmmal ñetti date donc te dañ ne xam nga rek yaa ñu ko tàmmal bëri daal ñibbi wala boog tàmmalaago la kon nag moom moo tax ma daal di jël troisième date bi Mhm, mhm. c'est important l'autre important parce qu'en fait cerf-volant c'est vrai que ab foowukaay la donc mm-hmm. lii tax ma indi ko moom mooy que ne ñu waxtaanee ci li nga xam ne rek moom mooy distraction yi nga xam ne dañ ko jox xale yi également mm-hmm. c'est pas parce que euh, cerf-volant rek bul xool cerf-volant rek xam nga tubaab mm-hmm. euh, ci wàllu wu nekk day seetlu doomam également ci wàllu wu nekk ca la muy nekk ndax docteur lay nekk ndax cuisinier lay nekk ndax médecin lay nekk ndax euh, policier lay nekk yëpp ci ay foo yu ndaw yu ñàkk solo yi nga xam ne manaam c'est africain farataal ko tubaab yi nag ca la ñuy jàng seen doom wala boog ñu leen ñaax ci ñuy daal ubbi seen xel. Mhm. ci wàllu yi nga xam ne rek moom mooy les jeux te c' est important donc euh, ce jour ce jour de 16 août c' est la journée mondiale du cerf-volant cerf-volant daal di ñu indi ci yenn fowukaay yi nga xam ne rek war nañu ko bàyyil. Euh, li nga mhm. xam ne mooy xale yi ndaxte nag euh, wax dëgg yàlla xale moom foo lañ ko xamee. Mhm. waaye ni xale yi xale yi léegi. foo foowatuñu ak ay fowukaay yi xale <laughs> loolu moo ma jaaxal. <laughs> c' est ça qui m'étonne quoi en fait c' est c' est c' est ça alors que dañu war a delluwaat les valeurs ces valeurs là ndax xale. dafa am toll âge boo xam ne dafa tolloo dafa war a ubbi xelam ci ay foo yoo xam

je, mmh. connais bien l'école, bien sûr. Ah, je ah, école c'est bon oui bien sûr non mais c'est machin là mon non c'est donc c'est important c'est mmh. important parce que aussi je le jouer beaucoup psychologie mmh. parce que également tu vision parce que ay couleurs ça te permet de faire xale bi fan la toll peut-être ci vision. Mhm. ak fan la toll ci en tout cas mën a euh, débrouiller wu. mu dagg mu yàqu. defar ko patience bi pour mu décoller ainsi de suite. nan ak nan ak nan ak mu nekk loo xam te ne ni c'est important. exactement euh, comme ni ñu ko waxee xëy nañ ko soofantal ñun nag dañ doon xëy na dañ doon def suñu ay kii nii genre suñu ay cerveau la bopp. waaw non mais day voilà ñuy jël ay feuilles defar ko en forme. voilà d'avion machin après nga sànni c'est important vacances on en profite Abdel pour vraiment. Euh, wax parents yi ñu ñu ñu ñu yóbbu xale yi ci des des des jeux yoo xamante ni ay jeux créatifs lay nekk de d'éveil oui bien sûr dafay éveiller xale yi hmm. mais également ci li nga xamante ne nii moom mooy nécessité ci xale bi ñu dem yóbbu ko fa ay activités yoo xamante ne nii activité peut-être sportive lay nekk euh, ci xale bi benn discipline bu muy suivre hmm, wala benn passion bu mu am ci benn affaire lu mu mënti nekk hmm. ngeen leen ci accompagner di leen génnee di leen yóbbu ci endroit yoo xamante ne nii xale bi dina fa jàngee dara ñu wàññi euh, concert yu ñuy yóbbu xale c'est important dëgg la mhm. dañuy mhm. génn mais vraiment ñu focaliser parce que y a des endroits fi euh, yo xamanteni ne mën nañ fa yóbbu xalé yi. on a les parcs wa waaw ah, c'est cher pas loolu mom on a les parcs on a les places publiques même bu fekkee ne aussi amul yenn jeux yi fofu non mhm. mais quand même ni ñuy génné xalé yi euh, ci bërëb yi nga xamanteni ne nii fa démé dinañ mëna admirer quelque chose. Mhm. muy nature bi euh, muy jeu d'éveil ñuy def muy lo xamanteni ne nii dina leen jappalé bu baaxa baax ci sen éducation ci sen jangat ci sen ay développement développement euh, ci seen euh, lépp loo xamante ne rek dafay mhm. yee seen xel da leen di njoñal activité physique également baax na ci en tout cas merci beaucoup pour euh, date yi nga xamante ne ni andil nga ñu ko dëgg la fooyekaay la mais jaare nañ fi ñun tamit foo <laughs> comme nu ñu neexee mhm. am na ñoo xam ne xam croissance su xale bi intelligence su xale bi mhm. xam boo yoree say doom ñuy kii ñuy màgg di màgg yow pour nga xam ku ci nekk tey ji intelligence am wala croissance am

yambul xaw ma nu koy waxee tànk yeggul. waaw du ñu bàyyi dañoo dañoo kii ñoom dañoo dañoo tenace quoi. waaw am na yoo xam ne amuñu patience man am na yoo xam ne su ma ci commencé. moom mhm. damay bàyyi teg ok non pour xam ndax xale am na patience. wala déet am na patience am na lu gën a yomb da nga koy jox tàngaat rek ne ko nga xool ko ndax da koy màcc wala da koy. su ko sax xamee rek nga xam ne xale bi amul patience. amul patience waaw loolu de am na. loolu de am na am na am na ay pas yoo xam ne dañ ciy testé seen i goro seen futur goro. Mm-hmm, mm-hmm. ah voilà ñoo jox tàngal xool surtout beaucoup plus ci côté boobu. ah bon waaw mm-hmm. waaw xool ndax waa ji am na patience lu déet. waaw parce que léegi naa rek nga xam ne kii xool. bu doon ci jigéen ñi rek kay xool nag xam daal. na tàllal ba caaka njaay quoi. non jigéen par contre na mën a xam nga peut léegi peut être xam nañ ko du mën a ñëpp mais am nañu bëri xam nañ ko mooy tax peut test bi doon la jàpp. da ah. ñëw rek jëndal ah, soxna si tàngal a ngi nii waaye mm, barkeelul après yow nga mm. kon boobaa test bi du ko du ma ko réussir parce que dama ko yëg. <laughs> man mi la ma ko yëg man aw ma man maa amul patience. man ah, ma ko yëg waaw man patience aw ko mm-hmm, mm-hmm. donc mooy loolu ayca amoo patience nag mais avec xale yi moom di nga am patience parce que il faut de la patience ça c'est évident ah c'est évident que avec les enfants il faut beaucoup de patience loo ko ñàkk ñàkk bu la yàlla dénkee njaboot moom bul sonn patience di nga ko am li may wax chaque jour comme nga am bébé bu amul patience doo li war ci moom doo ko def non c'est vrai li war ci moom doo ko def doo ko jox mu lekk parce que boo boo ko joxee bu jooyee rek mu reewantu nga dem suur na pare ci am na benn am na benn euh, kilifa gu mag ndeysaan euh, benn soxna dafa ñëwoon di seet si ne ko ah sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma ndaxte euh, wax dëgg fa yàlla sëy naa juróom-ñetti at waaye amu doom mhm. hmm? waa ji ne ko xaa defal mbir waaye nag euh, xam nga kañ nga may fay bés boo dofee na ko wax ah du du comprendre fi ma jëm léegi euh, bi mu demee ba am dom car machallah yalla may ko bant léegi nak bu fabee dom ji di ree xam nga di di ngóobeek yooyu yoyu <laughs> toog ba si yàgg rek xalaatal di ko sëñ bi xam comprendre non c'est vrai c'est vrai de indil ko loolu indil ko ay ay teranga yu bari bari nag sëriñ xam li nga wax léegi donc mhm. doom mo lay def lo mo lay changer yow bu mhm. amuloon patience forcément mhm. avec les enfants tu auras la patience tu vas apprendre parce que ben rek ñuy ki ngay dem am ñaar ñett ba ñett commencé na ñepp ki la nga bëgg leen gérer ku ci nekk nga mën a xam jikkoom ku ci nekk nga mën a xool na doxaleek moom mm. loolu patience donc moo ko mën mm-hmm. am na solo donc euh, am patience baax na lool ci euh, doomu aadama comme on dit euh, mais Sénégal nag parfois dañuy jaawale. Hmm. ku am patience ak ku ñàkk fayda parce que parfois boo amee patience ci yenn waaw waaw gars koy jàppee ku ñàkk fayda voilà hmm. malheureusement. Hmm. mais ay qualité la yoo xamante ne yéen ñi ko am bu mu leen ci benn yoon parce que dina leen amal njëriñ te xam ngeen ni sax am na njëriñ bu baax a baax patience ci di prononcer wu ci yenn patience. ci di agir parce que am yoo xamante ne ni amuñu patience. jékki-jékki def benn affaire ba pare damm na xëy na mhm. après quelques minutes après ñu ne bu ñu xamoon mënoon ñu xaar tuuti donc dina mhm. doon demee neneen ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax merci beaucoup en tout cas Abdel Malick waaw naa mën na waaw neex na kon neex na neex na benn neex na ba ñaari mbir de ah? ñaari mbir aca indil ñaari mbir non des na sa téléphone ah, non sama téléphone li ci ah. rek ba beneen yoon merci beaucoup Abdel na lool lool ba lundi ba lundi incha allah aca mi ngi noonu xam ngeen nag seen horoscope euh, jeex na Euh, li nga xamante ne moom mooy éphéméride yi tamit jeex na mhm. euh, voilà mais nag euh, moom oustaz daf ñuy accompagner ci ajuma ji ndax nag xam ngeen waxtaanu ajuma dafay am solo ci nag ngeen di mën a waajal seen ajuma bu tombeek tam bi nga xamante ne ni tey ji moom la ñu andi da leen dina leen mën a accompagner mais également accompagner leen ci seen quotidien de tous les jours ndax nag diine loo ci xam nag doyul te loo ci xam lu ne rek am na am xëy na loo xamante ne ni wuute nga ko ci ba tax na rek di jàngaat sak chaque jour dafay am solo la rawatina bés bu spécial bi ci euh, diine di bésu julli ajuma am solo lool euh, ñu ci profité waaye di leen euh, souhaiter juma mubarak ci ñi nga xamante ne également ñu ngi waajal juma bi tey ci bés bi ñi nga xamante ni tamit ñu ngi seen wet di ko célébrer à leur façon en famille di di partager lekk di def ay ñaan di dox jàmm surtout ci diggante jullit ak moromam di ziar nit ñi di baalantu ak lépp rek am na solo ci bés bi te Euh, en tout cas euh, bés la boo xam ne tàmm nañ ko ci bu baax a baax bu ko defee oustaz dina ñëw ak ñun euh, ci li nga xamante ne rek moom mooy fin de partie bi moom la ñuy jeexalee ñu bàyyi leen ak moom mi laata loolu ma bàyyi sama xarit yi baax yi ndax nag dinaa leen namm lool borom tàggoo bu dul tàggoo. Mm-hmm. est-ce que doo tàggoo rek ma bàyyi la nga tàggoo ak say xarit. Mm. Mm-hmm. dañuy tàggoo ah, baax na <laughs> doyoo loo mais nag tàggool foogoon dañ fiy toog 5 heures de temps sax. ah kon mën nga fay toog 5 de temps. ok non mën nañu bàyyi ak bi soo bëggee de. ok ok mu amul benn problème. kañ kañ dox bi ngeen mën ak yéen kay nii rek. voilà Mariama. comme ni ñu koy waxee saa su nekk dañuy tàggoo tàggoo bu lu tàggoo mais aussi tamit duñu tàggoo te ñaanu luñu ñi nga xam ne ñu ngi waajale yoonu màggal. suñu borom teg leen ci yoonu jàmm. et prudence aussi tamit ak chauffeur yi ndax nañu xam ni que yabu ñu ay mala yabuñu dara ay nit ngeen yab ay responsable ngeen yab mhm. donc boo leen di dem xool leen bu baax ni ngeen def parce que nit ki mhm. doo lekk lu dul sa wërsëg loo loo loo yàqamti yàqamti lu dul sa wërsëg doo ko jël donc dañ leen di ñaan rek euh, prudence ngeen def tànk te yoonu jàmm aussi tamit euh, ci bésu màggal bi voilà di wax euh, ñëpp juma mubarak yal nañu yàlla defal jàmm jàmm ci xol jàmm mhm. xel jàmm si jëmm jeeg yëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen jox dig daje. incha allah lundi mm-hmm. incha allah. merci beaucoup Queen Latifah euh, lundi incha allah ñaan yi foor na ñaan mm-hmm. te ñaanu xol la donc yow tamit nga dool li ñu ñaan xam na waaw mais macha allah man de dama wax amin rek laay wax ndax nag sama sëriñ bu ñaanee ba ma wax dëgg daa wax amin rek laay wax car euh, macha allah uh-huh. kon nag jumaa mubarak euh, macha allah donc jàmm ak jàmm altine incha Merci beaucoup Abdel, merci beaucoup Latifa. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, vous qui étiez avec nous depuis ce matin. Dylan jox rendez-vous lundi, mais également de remercier toute l'équipe technique ndax nag tey suñu nijaay euh, moo de ak ñun di leen Milkzo. Euh, bu baax baax. Milkzo <laughs> tey nekkatul nijaay. Milkzo. ah ah, ah d'accord ok ok. Aja euh, li nga xamante ne nii soppeeku moo gaaw soppeeku. waaw soppeeku ak changement. non fii milki soo laa koy wax bu wàccee nijaay laa koy wax. ñaar bu ngeen wàccee après ngeen yeggali eh, seen waxtaan ci bitti eh, bu ko defee nag ma bàyyi leen ak li nga xamante ne nii moom mooy oustaz ñu daal di koy tëjee lii di eh, go matinal à lundi incha allah. aouzu billahi min acheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mbokku téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax jumaa mubaarak fan yi rek laay wax benn xale ma ni ko bu njëkkoon ramadaan mubaarak nga daan dégg waaye léegi yàlla dugal na ci làmmeñu nit ñi ba àjjuma bu nekk rek kenn ku ci nekk booy nuyu sa moroom walla ngeen di tàggutoo sax di nga ko ni jumaa mubaarak moo tax tey ma ñew ci matinal bi li leen wax rek juma mu barak waye di waxtaan ak yeen ci lu am solo muy waxtu wu am solo ci aljuma bokku jullit yi yonent sallallahu alayhi wasallam neena jant timul bes bu gën aljuma neena aljuma moy sangu bis yi moo gën ci bis yi mu daf ci am waxtu wo xamanteni lo ci ñaan yalla rek yalla nungu ko muni iltamisuha akhir saatin ba'da al asr japp len ko waxtu wu mujj ci aljuma mo dox dañu bëgg ab julit fu ko aljuma fekk fu mu la munti fekk waxtu wu mujj wi manam actuellement ñu koy julli dix-neuf heures quarante bëgg 19 heures 30 rek nga commencé di ñaan mbokk yi ñaan jaamu yàlla yépp am nañu heure xam nga tisbar mun lo ko julli fajar il faut nga xaar ba 13h30 japp 15h nga mun ci julli tisbar waye ñaan waxtu yépp lañ la permettre pour nga def ko jullit waxtu yépp lay ñaan ñaan mooy loo xamante ni dañ ko wutal jullit bi ba wutaaleel ko sax bu doo woon dem soxla boppam di dugg ci toilette ñu ni ko na jiital tànk gauche ni allahuma inni auzu bika min alxubusi wal boo génnee daan ni alhamdulilahi allazi nii lekk sax lekk sax dañ la cee wutal ñaan kon ñaan mooy jaamu yàlla goo xamante ni amul waxtu waaye bisub àjjuma nag dan ni mun nga ñaan ci yeneen waxtu yàlla nungul la waaye nag bisub àjjuma dafa am waxtu woo xamante ni loo fa ñaan rekk yàlla nungul la ko looloo tax tey ci matinaan bi ma fàttali ko mbokk yi mbokk yi ñaan nit ki mun na ko def foo munti nekk foo nekk mun ko koo def suñu boroom nag daf ni ud'uuni astajib lakum daf ni woo leen ma ñaan leen ma ma wuyu leen ci lima leen di may beneen bi muni ni ud'u llaaha aw ud'u rahmaan ayyan ma tad'u فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل فكبره تكبيرا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا suñ boroom daf nii woo leen ma ci sama tur wi ma tudd ndax moom Allahu la tudd li ñuy tuddee nom propre moom Allahu la tudd mu ni waaye mun ngeen maa woo ci yeneeni tur suwaat raxmaan wala rahim wala muhaymin wala les quatre-vingt-dix-neuf noms de jë mu ni fu ngeen ma ci wooye rek tur yooyu dafa rafet maa ko moom mu ni waaye su ngeen may woo jarul sax ngeen di yuuxu ca kaw a kaw a kaw waaye jarul itam ngeen di noppi ndax yéeféer yi am na ci wala ñu ni ñeneen la sax mun na nokkan sax ñeneen dañ doon wax naan suñu boroom kat bu fekkente ni daf noo jigée ñu déeyaale ak moom bu fekkee dafa sori ñu woo ko ci kaw ren salaa salaam jàngale ni jaru ko moom da leen di dégg ndax moo leen gën a jege seen buumu xol alxuraan nag ni booy woo suñu boroom bul noppi de waaye bul yuuxu itam ci kaw defal lu dugg équilibré wu rek lu nekk ci digg bi muni ni soo wooyee yàlla ci turam yi da lay wuyu mu ni yàlla moomu nag amul dendandoo ci melo amul dendandoo ci jëmm amul dendandoo ci dayo ci kartan mu ni yàlla moomu jurul takkul jurluwul suñu borom boobu nag boo ko ñaanee mu ni dalay wuyu dalay may mbokk yi ñaan rawatina bisub àjjuma dafa baax lool li ci gën nag mooy lu gàtt gàtt gàtt gàtt gàtt ci journée bi ngay ñaanal sayyiduna muhammad sallallahu Alaihi wasallam di julli ci moom li ci gën mooy nga allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman boo munul loolu nga ne allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim ndax dan ni moom boo jullee ci moom suñu borom da koy delloo ruuxam ni ko diw ko julli na ci yow mu julli ci yow julli gi muy julli ci yow mooy dalay ñaanal yonent bi sallam nag nee na ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon ku julli ci man fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci man téeméeri yoon yàlla julli ci yaw junni yoon te koy sunu boroom julli ci yow junni yoon sa yaram araam safara looloo tax bisub àjjuma ñu bëgg ngeen di ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi lu ngeen ci def rek nag baax na donte sax benn salaatu ala nabi la baax na